voilà mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm ak suñu entretien bi nga xamante ni am nañ ko ak euh, Abdourahmane jaw nekk euh, ingénieur en informatique en même temps tamit nekk diplomate nekk tamit euh, directeur de cabinet bu mairie bu Colobane moom candidat la ci mairie bu HLM mi ngi bokk. Euh, ci coalition République des Valeurs bu Thierno Alassane Sall am na yeneen i casquette yoo xamante nii après dama koy bàyyi mu gën a tàllal loolu waaye tamit nekkoon na fële nga xamante ni moom mooy ci Malick Gakou conseil régional defe naa. Euh, liggéey na ci maanaam daal lu bëri liggéey na ko ci wàllu administration fii ci biir réew mi kon bu nekkee candidat ci goxam di HLM kon bokk loolu lu war la euh, monsieur Abdourahmane Diaw maa ngi bàyyi nga nuyoo ko waa Sénégal yi ñuy seetaan. merci ngi lay nuyu di nuyu auditeur ay auditrice su Sénégal di nuyu sénégalais yëpp di nuyu particulièrement waa goxu HLM. voilà euh, si li ma la jot a présenté pour nit ñi gën la xam comme candidat nga te it day baax loolu nit bu nekkee candidat ci gox ba mu nekk di nekk ci làngu politique yi soxla nañu nit ñi xaw ko xam tuuti moo waxee conseil régional ak Malick Gakou nga nekkoon daaf nekk tamit euh, mairie bu Colobane nekk. Euh, directeur de cabinet maire bi euh, nekk tamit euh, li nga xam ne moom mooy secrétaire général benn parti wala boog secrétaire administratif URV euh, su nekk diplomate tamit su ma la bëggee bàyyi pour nit ñi gën laa xam tamit yan yeneen i nga am wala nga liggéey ko fii ci biir réew mi merci Pape Maguette alors Abdourahmane Diaw c'est c'est vraiment un pur produit de l'administration locale Effectivement, je suis ingénieur en informatique. Je suis diplomate, oui, j'ai un troisième cycle en diplomatie. Effectivement, aussi j'ai un diplôme supérieur en finance et puis un diplôme en gestion urbaine, c'est-à-dire un diplôme supérieur en gestion urbaine nu ñuy yoree gox-goxaan yi. alors yooyu mooy li nga xamante ni moom laa jàng mais dans la pratique depuis 1994 je travaille dans les collectivités territoriales. Entre 94 et 96, j'étais à la ville de Dakar comme informaticien. Depuis 96, maa ngi conseil régional bu Dakar de 96 à 2014 comme DAF. directeur administratif et financier. Ah tous les présidents qui sont passés. man maa doon seen DAF. Malick Gakou mi ngay tudd pratiquement si mu jee ñëw lañ la bokk. mais y' a Ablaye Faye qui est passé y' a Mamadou Simbeng comme intérimaire y' a y' en a plusieurs au moins six ou sept président jaar nañ conseil régional. Mm. donc loolu yëpp nag. Mm-hmm. tax na ma accumuler benn ex expérience pour dans la gestion des collectivités territoriales. Mm-hmm. et waxuma gestion interne bi rek. mais gestion internationale bi c'est-à-dire la coopération internationale et la coopération transversale au niveau national. mu jëm ci wàllu diplomatie. voilà loolu moo jëm ci wàllu diplomatie bi. Hmm. ak expérience boobu yëpp mën nañ wax ne kon euh, mbokk internet yi ñuy seetaan du novice ci wàllu politique du novice tamit ci wàllu administration du novice tamit ci yoon gox euh, tey nga nekk candidat mairie bu HLM. balaa may ñëw ci candidat boobu lan moo la poussé nga nekk directeur de cabinet mairie bu Colobane te nga dëkk HLM. alors euh, da nga ni du novice ci politique effectivement en 96 j'étais conseiller municipal aux HLM. aux HLM. ça c'est important que les gens le sachent. Ouais. premier conseil municipal bu HLM man ci laa bokkoon. J'étais conseiller du Parti démocratique sénégalais. Mm-hmm. mais j'ai pas duré dans le conseil un an et demi après dama démissionné parce que dama waroon dem continuer sama jàng continuer carrière professionnelle. Mm-hmm. Euh, li tax tey ma nekk mairie Gueule Tapée Fass Colobane comme directeur de cabinet te dëkkuma fa c'est très simple. je suis un professionnel. je suis un professionnel une mairie boo xamante ni ki koy diriger sama xarit la sama grand la. bëggoon na ku ko jàppale pour defaraat maireem ba ma fay ñëw j'ai trouvé à peu près trois cent cinquante millions de budget en deux ans le budget est allé à à un milliard alors donc ñun li ñuy def moom lañ jàng moom la ñu liggéey depuis pratiquement vingt sept ans donc pour def ci ay résultats daf ñuy yomb donc loolu moom ma indi maire Gueule Tapée donc avant d'être directeur de cabinet j'étais le directeur des recettes lijjanti recettes yi ba mu tegu ci yoon après ma yore dépenses yi les finance daaf tout dernièrement lay soog a nekk directeur de cabinet mm-hmm. parce que de plus plus qu'on avance plus sama jot gën a ñàkk parce que je me suis encore relancé dans la politique mu jugee ci trois cent cinquante millions comme ni nga ko waxee yóbbu ko ci deux milliards un milliard un milliard ci benn durée bu gàtt mm-hmm. d'accord léegi expérience boobu noonu moo tax nga ni da ngay nekk candidat mairie bu HLM wala dalaa ma ñëw nekk candidat mairie bu HLM wala boog askan wi ci boppam ñoo soxla loolu. alors xam nga sooy liggéey liggéey bu mucc ayib si yeneen gox. Mm. sawa gox dañ koy xam. Mm. parce que dëkk bi fii dara réeru fii. Mm. alors HLM ak Colobane am nañ frontière. donc loo def biir Colobane donc waa HLM dañ koy xam. alors donc les gens ont discuté avec moi plusieurs fois depuis mille 2014. bon j'étais pas trop chaud pour y aller parce que déjà euh, le mode d'élection doyuma woon mm. mode élection bi man mi ngi may soog a doy mm. parce que léegi l'élection est directe cest di nit ñi dañuy voter suñu voter xam nañ ki ñuy voteel kan la mm. xam nañu ki ñu war a fal kan la avant c'était pas ça avant da ngay voter pour un conseil municipal ñoom ñu tànn ci seen biir kenn def ko maire mooy jiite. donc souvent ñi ñuy teg du ñi nga xamante ni ñooñ la population yu bëgg mais fii nag population yi ñoom ñooy voté teg ki ñu bëgg donc man loolu dafa ma jox courage su ma ko booleek expérience bi ma am ma doon doomu HLM dëkk fa depuis 46 ans depuis 1974 jàng ci école publique yi. donc tey am na loo xamante ni man ameel naa ko HLM. loolu moo ni je vais moo tax ma ni damay sacrifier ci sama temps. dem si sama gox toog fa jéem a fexe jël mairie bi liggéeyal leen lu ëpp la may daan liggéey ci yeneen maire yi nekk Sénégal euh, waa HLM yëpp laa ci àndal hmm. waaw soo ñëwee HLM di nga xamante ni waa HLM yëpp laa ci àndal. non askan bi ak man yëpp man maa bëgg HLM. Hmm. parce que de tout le temps depuis les quarante six ans yi ma fa nekk yëpp at yu ma tolloon rek la ma war a def ci biir HLM maa ngi koy def hmm. donc sama loxo mosul jóg ci HLM. sa loxo mosul jóg ci HLM dégg nañ ne membre fondateur nga wala boog yaa créé HLM basket club loolu dégg nañ ko am nañ information bi. beneen bi mooy tey HLM ku fay nekk candidat rek am na sas bu rëy benn sas bu rëy bi mooy marché HLM chaque jour mu nekk coow loolu moom li koy gars yi di waxee loolu kaa la ci biir kaa yi. Mhm. Euh, Abdourahmane Diaw pare na pour régler problème mu marché HLM boo xam ni c' est un problème boo xam ni chaque année day am coow diggante mairie bi ak les commerçants. alors c'est normal coow loolu du fa mës a jóg parce que dañu bàyyi commerçant yi ñu jaay ci mbedd mi suñu jaayee ci mbedd mi euh, tabaski wala Korité jot maire bi nii dafay defaat beneen foire hmm. ci booru ñu daan jaay ci mbedd mi te foire ba ña koy occupé du ñu nekk du ñu du ñu nekk waa marché bi cest à dañuy jóge à l'extérieur des HLM ñëw teg loolu coow du fa mës a jóg coow lu ëpp nag yi am HLM loolu moo ko indi cest fête day am ñu def foir foire boo xamante ni ñu ña koy ñëw di nekk ci foire ba nekkuñu ci marché bi alors ça pose problème donc les commerçants souvent ils ont raison par rapport à à mais ça. mais parfois dañuy gis tamit bu fekkee ne sax du korité du tabaski dañuy jékki-jékki rek maire bi tuuti ne day dëgër piir ñu nekk ci kaw tali bi loolu tamit problème bu. mais mairie bi mënul de mënul leen dëgër piir parce que souvent moo leen di autorisé xam nga. xam nga y' a y' a des autorisations de autorisation de fait la cest à nit ki suuf toogee même soo ko joxul këyit mu toog fa le lendemain nga ñëw ne ko dangay fay juuti yow yaa ko yaa ko toog loo koy fayloo juuti yaa ko yaa ko toog loo te nag maire yi dañuy fayloo commerçant yi toog ci mbedd mi juuti ba pare ni leen duñ fa yeneen toog beneen jur rek ñëw ni duñ fa duñ fa jóge te dama lay wax dara na nga seetlu ci li ma lay wax bu baax souvent les maires suñuy intervenir c'est parce que président de la république wax na dans son discours les problèmes de déguerpissement wala le préfet wax leen problème déguerpissement pour que ñoom ñu agir mais su dee maires yi kese la commerçant yi la duñ leen déguerpir parce que pour ñoom seen ay recettes foofu lañ koy jëlee. Euh, ban projet nga am pour marché HLM. H&M, pour man c'est un marché à moderniser. man loolu gëm. soo ñëwee fii Gueule Tapée Fass Colobane moi travailler dans tous les projets de modernisation des marché de cette commune Gueule Tapée bii le marché le plus moderne du Sénégal foofu lañ ko nar tabax avec 2500 cantines maa ngi ci projet boobu Colobane le centre commercial kon a construit dans la gare man si ñu defar projet boobu ci la bokk la modernisation de l'électricité du marché de Colobane ñi def loolu man ci la bokk man loolu laa gëm pour man ces marchés la doivent être modernisés donc marché HLM am naa ci xalaat mais doyul pour man lay àggali sama xalaat mooy ma toog ak waa marché bi su ma jëlee mairie bi waxtaan seek ñoom ba jubo seek ñoom waxtaan seeg riverain yi ñu dëkk aux alentours du marché ba jubo seek moom ñu def un projet commun boo xamante ni coow du ci am te day nekk au bénéfice des commerçants des riverains et de la commune. sur le plan euh, lu jëm ci wàllu jeunesse bi bu HLM moom bëri na ay jeunes yoo xam ne ñu ngi fa mais jeunes yi booy xool lu ci bëri euh, seen li ñuy euh, seen occupation dafa varié ñii ay artistes lañ ñii ce sont des sportifs particulièrement côté sport bi foofu am na fa benn domination boo am solo am na club wàllu football am na ay ASC yoo xam ne bu ñu jugee mbooloo mi mbooloo HLM yépp ay jóg ay derby la ñuy football rawatina ci jëm ci wàllu basket bi HLM basket club fondateur la ci euh, club boobu noonu booy xool léegi dafa mel ni kii dafa wàcc ci wàllu infrastructure tamit am na problème benn corniche boobu moo fa am stade bi doxul loolu lan moo ci sa sa problème c' est un problème. Mmh. stade boo xamante ni depuis parce presque dix ans mënul fonctionner. Mm-hmm. ñu jox ko un promoteur xam moom quel type de contrat moom la maire bi def ak promoteur bi mm-hmm. dix ans kenn mënul tabax stade bi. alors que c'est un stade qui pouvait abriter tous les matchs de l'équipe de l'ASC ASC bu mag bi mm-hmm. ak HLM 6 Nimzaat ak HLM 5 ñoom ñëpp foofu lañu daan fubalee mm. mais mootuñ ko utiliser mm. alors pour moi ça c'est le premier problème à régler au niveau des HLM mm. un contrat on le dénonce si un des contractants respecté wul ay engagement am il faut dénoncer le contrat dem defari beneen contrat ñu ñu defar suñu ñu defar suñu mm-hmm. donc loolu c' est pas un problème mm-hmm. pour régler ko c' vite fait xam naa nu ñu koy defee yàgg naa liggéey ci affaire contrat depuis plus de 27 ans loolu laay liggéey ça ne me posera aucun problème te dinaa trouver ñu ko def mm-hmm. ça c' est d'un de deux quels sont les projets qu'on peut faire au niveau des HLM pour mettre les sportifs, comme tu le dis, c'est un, quartier de sportifs, à l'aise. Mais Konich, il y combien de, il y a combien de terrains de football Il plusieurs. Mais il faut les moderniser. Il faut les moderniser. Ce pas à la mairie de faire des travaux de modernisation de terrain de foot. Il faut faire des partenariats publics-privés. Il faut trouver des partenaires privés qui, ont, qui sont capables de faire les travaux, d'utiliser l'espace durant tant d'années di ko louer ou tout ce qu'ils feront voilà voilà def ko di ko louer période yoo xam ne dañ koy loué ak période yoo xamante ni c'est gratuit pour ñi nga xamante ni peut yi dend école yi dend terrain yi ah ci def sport ainsi de suite voilà il y un compromis que la mairie va trouver avec ses partenaires privés là pour que toute la longueur des HLM ñu def ko ay terrain synthétique yoo xamante nii ñu mucc ayib la c'est possible ça pour trouver les les gens tapent toujours au niveau de nos portes pour pour pour def yu mel noonu donc ça ne posera aucun problème. mais mais li nga wax nii est du nekk benn kàddu boo xamante ni kàddu kiy tagaan baatu askan bi maanaam di soxla ñu fal ko pour mu falu te li ñuy wax ci waaye politique yi yow sax miinuñu la ci seen politique bi duñ la gis lu bëri euh, boo nekkee candidat ñu bëri dañ leen di découvrir ak sa expérience bi nga am ci wàllu administration wax nga ko lu yàgg sax. est-ce que du doon wax yoo xam ne xëy na mën nga ko wax rek après boo xaloo euh, comme politicien yi oui si si ça devait être ça du ci dugg. parce que suñu borom mi mooy suturaal du ma ci dugg. man kay su ma ci duggee pour lu jëmale HLM kanam la. mais su dee pour euh, wax lu kii damay dem toog sama kër def sama liggéey. Mm-hmm. alors man je suis un plutôt un technocrate la mais. tout le monde fait la politique politique moom looy def rek politique a ngi ci alors ñun li ñu yëkkati sa simple moo tax soo xoolee ñi ñu àndal biir HLM c'est souvent de personnes yu nga xamante ni c'est des personnes de la société civile ñoo ci ëpp ñoo xamante ni HLM rek moo leen ñor waaw ñi HLM ñor nag ñun ñooñ lañ àndal muy mouvement associatif yi muy euh, groupement de femmes yi groupement de jeunes yi ainsi de suite ainsi de suite dàquñu kenn képp koo xamante ni HLM ñor na la ba nga jël sa xalaat def ko ci as pour si programme pour HLM mën a jëm kanam ñun dañ lay tàllal suñu loxo nga ñëw. wax nañ ci wàllu jeunesse bi wax nañ tam ci wàllu commerce bi lu mel ni ki marché HLM yooyu moom kenn mu mënul wax HLM te doo wax ci loolu ñu gën ko rek ne ci wàllu euh, côté social. gis nañ benn programme boo xamante ni yaa ngi ko ci sa euh, programme bi ñu envoyé muy li jëm ci wàllu mag ña nekk ci wàllu diine géeg ak lu jëm ci wàllu social maanaam bi loolu tamit lan moo ci sa taxawaay parce que tey jamono laaj na loolu. alors des quartiers très très très très très vieux. Mm. ay quartiers yu yàgg la. ay 1960 1900 voilà HLM quartier bi fa gën a euh, doon ndaw am na minimum 25 ans mm. wala 30 ans mm. alors. donc c'est un quartier vieux donc il y même euh, une population boo xamante ni on peut diir que elle jeunes mais am na une population boo xamante ni ay mag ñoo fa nekk tey mag ñi pratiquement ñoo yore njaboot yi waaw donc mag ñi dañu sonn tey dañu soxla ku leen dimbali te ñi leen xale yi leen war a dimbali amul gisuñu xamuñu fuñ jëm dinañ jàng dinañ am seen diplôme mais du ñu am ku leen casé. alors ñenn ñi sax duñu sax mun a àggali seen jàng parce que seen ay parents amuñu lu ñu fay fayalee pour ñu jàng pour man à ce niveau là la mairie doit réagir la mairie doit faire des politiques de prise en charge scolaire pour la formation professionnelle des jeunes pour les aider à terminer leurs études ça c'est d'un pour l'insertion au niveau de l'emploi SODIDA mairie yi ko am bariwul Il y a combien de à la Solidar Il faut que la mairie prenne l'engagement de discuter avec les entreprises qui son au niveau de la Solidar. Si RSE bi responsabilité sociétale d'entreprise bi nga xamante ni société yi dañ ko war ameel communes yi ñu xool nu ñu koy discuter pour que pour que ces sociétés la puissent prendre nos jeunes en priorité dans le recrutement. oui loolu mooy responsabilité sociétale d'entreprise mm. loolu dafa am. Mm. donc maire bi moo war a def première pas bi. dem waxtaan ak ñoom. xool xam base de données wu ay jeunes xam ñaata jeune diplômé la am. ñaata ñooy jàng. xam nga xool noo leen di orienté. au niveau des entreprises. te du yem foofu. il y a d'autres entreprises qui sont qui qui donc pour moi c'est des problèmes yoo xamante ni euh, pour man engagement la rek. si le maire sangage a régler certains problèmes il va les régler. voilà si wàllu santé la wér gu gis nañ ne dafa mel ni ki benn poste de santé la mais benn centre de santé ak poste de santé mais yoo xamante ni kenn mënu fa faju mm-hmm. nit ñi dañ koy jéggee dem ci dem si yeneen yeneen centre de santé ay Gaspard Camara mm-hmm. ay feneen. Mm-hmm. mais loolu dafa dafa dafa dafa dafa doy waar. un quartier comme HLM. il faut relever le plateau médical. dama ni même budget bi maire bi su amul budget ba mu ko defee coopération coopération mën na ko jox loolu y coopération transversale ici qui se fait ici au niveau national avec des institutions comme comme euh, les Nations Unies ay UNFP qui ont aidé la mairie de Gueule Tapée Fass Colobane à construire un grand poste de santé ba pare def tout le matériel adéquat pourquoi nous on ne peut pas le faire en fait je pense que suñu maire yi aussi dañu dañu dañu doylu ba mu ëpp doylu bi mooy ñoom pour ñoom recette yi ñuy jëlee ci marché ba ak ci mbedd mi loolu daal la ñu war a xool lu ko jaayee et mu jeex. dafa mel maire yi maire yi ah, mais aussi et puis dañuy seen gox. mais mais mais je vais te dire une chose. Hmm. en luñ la jox loo war a yor aussi da nga ci war a xam am xam-xam. Hmm. soo si amul xam-xam doo ko mën a développer. Hmm. le personnel. qui au niveau des mairies aussi war nañ ko xoolaat il faut qu'on mette le personnel bi nga xamante ni moo fa war a nekk. non yaa ma neex bi yaa ma neex du développer yaa ma neex yaa ma neex du développer commune du développer état mm. Macky Sall quand il choisit ses day xool secteur bu nekk ñi fa gën a xarañ mu choisir leen les maires yi loolu lañ war a def xool ay jeunes yu xarañ. ñu jël leen teg leen ci poste yi ñu liggéey. mais non même si mais mais mais le. ay conseillers yoo xamante ni ils mais tu sais. mais je te dire une chose. conseillers du ñoom ñooy développer mairie bi. c'est le personnel administratif ki fait le boulot. conseil yi orientation yi la ñuy joxe. mais ki boo boo demee bay fal war nañu am ay commission yu ñuy xalaatee ak yooyu. loolu lañu war a def commission yi suñu xalaatee jébal ko conseil municipal ñu def ko benn comment dirais-je encore délibération jox ko maire bi maire bi jébal ko administration bi pour administration bi exécuter ko mais à tous les niveaux su fekkente nii dafa sooxe rek day feeñ ci doxalinu maire bi. loolu looy doy wàllu politique. Mm-hmm. ndaxte lu ne la ñuy gis kon bu ñu déggee kàddu yi nga xamante ni bàyyi ko na ci Abdourahmane jaw Euh, nekk candidat république des valeurs pour nekk euh, maire bu HLM Samb Ndëndëm mën nañ wax ne tey technocrates yi léegi ñoo war a diriger les mairies pas les politiciens purs politiciens. effectivement xam nga lu waral loolu. Mm-hmm. benn le mode d'élection a changé. les gens nit ñi dañuy gëm seen bopp. Mm-hmm. xam nañ ni suñu dëggalee seen bopp wax seen profil mm-hmm. nit ñi dañuy xalaat. nit ñi soo waxee ak ñoom xam nañu ku mën ak ku mënul. xam nañu kuy def politique politicienne ak ku deful politique politicienne ay ñëw di maye ay ceeb fii ay mille francs fii pour nga votel ma yooyu xewi na léegi nit ñi da ngay ñëw ñu ne luy sa programme soo nekkee di yox yoxi dinañ la wax waaw si njëkk ak teraanga mais su bis bi jotee lañ war a def la ñuy def lool nag nit ñi dañ ci war a xaataat bu baax ah, Abdourahmane Diaw wax nga ko nga ci mairie bu Colobane jëlee budget trois cent cinquante wala boog recette trois cent cinquante millions dem ba ci un milliard tey mu am benn problème boo xam xamante tamit comme problème mu HLM rek marché Colobane ak mairie bu Colobane Fass Gueule Tapée euh, nekk na benn problème boo xam ne toujours intifada day am tey yàggul dara mairie bu Colobane euh, wala boog commerçant yi nekk am na benn euh, ñaxtu boo xam ne ñaxtu nañ ko woon loolu lan nga ñu ci mën a leeral ak seen diggante ak marchand ambulant yeeg ak ñi nekk biir Colobane alors loolu li ma la ci leeral mooy aujourd'hui marché Colobane doon na marché bu gën a mag ci marché yi nekk Dakar mais doon na marché bi ëpp sécurité aussi aujourd'hui ci marché yi nekk actuellement nii xam nga lu tax gis nga Colobane rek ngay dem doo gis benn fil buy traîner diggante cantine ak cantine amatu fa loolu ñun dañ ko génne la Sénélec nous a aidé sur un financement de plus d'un milliard cantine yi nekk Colobane yëpp ku nekk ñu defal la sa cantine sa sa sa compteur individuel alors loolu commerçant yi Baara Amar mi xale yi di ŋàññ moo diriger commerçant yi nekk foofu moom bokkoon na si ñi nga ko doon négocier pour que ñu defaraat marché boobu. dafa far ci dafa xam nga far ci mairie bi. ku nekk président marché di nga discuter ak mairie. xam nga ka nekk président wu marché. xëy na mairie bi am lu bëgg a def te du arranger mairie bi amul dara lu mu def loo xamante ni arrangé wul commerçant. xam nga lan mooy seen problème lan mooy seen problème aujourd'hui aujourd'hui dafa ñoom euh, benn camp bi dañu ni il faut que ñu organiser ay élections parce que Bara Amar euh, kiyam jeex na. dafa waaw dafa waaw dafa na fa ñaari mandat ak lu topp. mais ñaari mandat lu topp mair yi sax def nañ ko. Mm-hmm. les maires. Ah, kañ la seen mandat jeex. mais dafa dafa euh, dafa tombé dafa tombé. dafa tombé ak situation. donc euh, soo demee ci marché yi man xaw ma kii moo ëpp doole kee moo ëpp doole. Mm-hmm. mais en tout cas li ma xam mooy. Mm-hmm. marché Colobane problème yi ñuy wax ci rajo yi nekkul ci biir marché bi. loolu man xam naa ko. problème bi da ci am ñee di wax élection ils ont raison. am nañ droit demander pour ñu def élection parce que ñii app bi jeex na mooy ni ko opposition bi doon demander président de la république pour ñu organiser élection locale yi ils ont raison et nous on a pris aussi nos responsabilités dajale nañ leen ñoom ñëpp man mii maa leen dajale ak le maire waxtaan ak ñoom def benn calendrier pour organiser ay élection ak ñoom normalement le 21 bii nii nii ginnaaw suba bii ñoom su ñu kante ni déposé nañ seen ay candidature mën nañ def ay élection sectorielle hmm. au niveau du marché après élection sectorielle yi nag ñu soog a def élection wu bu mag bi voilà voilà loolu mooy problème bi amul beneen problème hmm. marché ba amul beneen problème bu dul affaire élection léegi benn problème boo xamante ni man dama ko gis boobu moom man maa la ci interpellé yàgg Sénégal yàgg na ko di ci interpellé mairie bu Colobane canal bii nekk fii jàkkaarloog Sénégal te amul protection amul dara yenn saa yi ñax yi fees fu dell oto mën na fi saaraan dugg si biir gis nañ benn borom moto saaraan na fi dugg ci biir lu ne mën na xew ak insécurité rawatina ci wàllu ay agression ñoom seen ñoom loolu ban ban ban décision ngeen si jël yéen ko romb nii rek di ko seet nii rek alors xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga c'est bien que nga poser cette question mais c'est bien aussi qu'on rappelle mm-hmm. que les mairies dafa am lu ñuy wax des domaines de compétence alors dans les neuf demaine de compétence yi nga xamante ni communes yi moom la ñu jox assainissement bokku ci canal bii du canalu mairie Fass Gueule Tapée Colobane waaw voilà moom maa ngi ñëw maa ngi ñëw maa ngi ñëw alors même nettoiement bi canal bi c'est la ville de Dakar moo koy def mairie bi mairie bi amul moyen pour pour pour nettoyer bi maintenant maintenant soo su si su fekkante ni émission bi permettre na ko dinaa la wan ay images yoo xamante ni day am comme ni nga ko waxee de panneaux de protection sur tout la longueur. loolu seen programme ah non moom dañ dama la koy wan. pour nga gis ko dama la koy wan pour nga gis ko. mooy moom moom la ñuy def voilà moom la ñuy def ci kii bi. comment dirais-je moom la ñuy def ci longueuru canal bi. moo mu nekk. c'est presque c'est léegi ñu démarré ko mais ce il faut savoir aussi mooy kanaal bi mënoo fa def benn surcharge cest à kanaal bi dégg nga coow lu ci am yëpp dafa am problème mu existence c'est-à-dire durée durée de vie dafa jeex pratiquement waa léegi nag il faut ñu éviter di teg ci kanaal bi lu diis donc loo fi mun ci def aussi il faut que ay experts ñëw xool xool suuf si xool la mu àttan ak lu mu àttanul nga mun ko su ñu ngi fii nous on en a discuté loolu moom moo tax liñ ci bëgg a def dinañ ko ci def vidéo yi dina la wan na la ko donc sur toute la longueur on va le loolu moom mun nga mun nga mun nga mun nga xam ni mhm. yéen waa Sénégal doon leen taxawti di seen di seen ay ñax ci biir canal bi kon xam naa moom moo nekkoon deuxième partie bi nga xamante ni waxtaanee nañ ko mu jëm ci euh, Colobane euh, ki tamit lépp loo xam ni jëm nañ ci ay projet ci marché bu HLM ak euh, sport beeg culture bi culture bu ñu ko waxee dañuy wax wàllu sport wax nañ ci wàllu santé ak lépp ak mag ñi côté social bi tout ça muy sa programme boo xamante ni teg nga ko xam naa dañ ci gën a yaatal sax lan ngay tàggatoo loo xam ne xëy na fàtte nañ ko te yow mu nekkoon sa bébét ci biir HLM. alors li nga xamante ni tamit euh, bokk na si li nga xamante ni sama mbir moom mooy égalité des chances c'est-à-dire moi parce que maire yi nu mu munti demee dina def ay ndimbal mais ndimbal boo xamante ni da nga koy jëmale si sa waa parti kese comme ni suñu maire yi def loolu il faut que déjà mu jóg biir HLM ñaareel bi éducation bi xale yi il faut que ñu fexe mettre leen dans un environnement boo xamante ni suñu xëyee dañuy yàkkamti dem école mais école boo xam te ni soo duggee yow da ngay yàkkamti génn ci école bi loolu taxul xale xelam di xarañ ci njàng santé bi comme ni nga ko waxee fexe relever le plateau médical jeunesse bi fexe ba ñu am des de des des zones sportives des zones sportives yoo xamante ni nañ fa mën a defee seen sport defaraat euh, comment dirais-je euh, terrain bi defaraat corniche bi ba ñiy def sport mën a def seen sport en tout quiétude alors la war a bëgg a defar HLM bare na il faut que les gens se respirent HLM avant c' était un quartier vraiment boo xamante ni ñëpp fa bëggoon dëkk y avait des jardins y ay allées y avait tout allées ya fa nekkoon depuis Mathusalem ba tey moo fa nekk su tojee sax maire bi du ko defar alors que da ngay dem si yenn quartier nit ñi defar ay pavage à gauche à droite di defaraat. donc HLM du quartier boo xamante ni jafe na defar quartier la boo xamante ni nit ñi discipliné nañu nit ñi set nañu te nit ñi bëgg nañ seen bopp mais malheureusement ils n'ont pas eu la chance d'avoir un maire à la hauteur de leurs besoins. ñu ngi lay jaajëfal Abdourahmane Diaw candidat maire bu HLM République des Valeurs bu Thiéba Alassane Sall kontaan nañ loolu ci waxtaan merci Pape Maguette maa la gën a kontaan je pense que c'est la deuxième fois fii ñëw mais toujours c'est même sourire. c'est les c'est même professionnalisme te ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla may leen ba lépp lu ngeen bëgg seen métier bi suñu borom teg ko seen loxo.